dali nag jàmm ñu ànd xëy yër yéen kaay ñu xëyandoo yéen kaay gi di réew mi quotidien mu daal di xëy ci nag mbootaay gi nga xam ne moo ëmb entreprise yu Sénégal di MEDES ni ki démb la ñu doon amal fukk ak juróom ñeenteelu édition forum du premier emploi maanaam di xalaat di xool nan la ñuy def yan pexe la ñuy lal ba ndaw ñi daal di mën a am liggéey ci réew mi Mohamed Boun Abdallah Dionne di xam ne ci réew mi am na ñoo xam ne nag ñoo ngi wër ku leen liggéeyal waaye nag la ñu soxla leen ko liggéeyal gis ku ci am qualification moo jafe maanaam ku ci am xam-xam moo tax nag ndaw ñi dañu leen di woo ngir ñu amal ay formation maanaam ay tàggatu mën a am métier mu leer ba tey ci biir yéen kaayu groupe promo consulting bi président Mbagnick Diop mi nga xam ne moo jiite MEDES moom nag daal nay woo nguurug Sénégal ak secteur privé bi ngir nag ñu daal di xalaataat lu jëm ci wàllum politique bi ñuy def ci lu soxal liggéeyu xale ndaw yi bu ñu nag bëggee xeex lépp loo xamante ni jëm ci wàllum chômage ba tey bi moom président mbir mi il faut ñu am ay stratégie yu yees daal di koy jëmale maanaam orienté ko ci programme éducation wala sax développement ci gox-goxaan yi moo xam régional wala nag national journal bii di laas ak Vox Populi ak les Échos enquête dikk nag ci jàppante yi nga xam ne ni ki démb amoon na ca diiwaanu Ndar maanaam mbir mi safoon na sàpp ndax ñi nga xam ne ñooy nappkat yi démb nag dañoo janoo woon a takk der yi maanaam policiers yi sànnante ay xeer ay grenade lacrymogène maanaam mbir mi pëccoxoo woon na loola la ko waraloon nag mooy yi ak la leen merloo ak la ñu doon sàkkul ci lu jëm ci seen licence de pêche yi ba léegi nii France daal di na yéen a kaay yu groupe consulting bi di réew mi quotidien mu ñu xamal naan ñu Senelec ba nag ak Sonatel ba dañu ko daal caxte caxte bëri na ñoo xam ne am nañu si ay gaañu-gaañu bëri na ci tamit ñoo xamante ni teg nañu leen loxo yéen a kaay gi mu ñu xamal ñu kay ni ki démb maanaam nappkat yi dañoo taal ndar géej ma ngi ci libération a ba tamit na nag ay yoo xamante ni mi daan nañ koy lakk ak ay oto ci ndar en tout cas li am ba des journal bi di Sud Quotidien mu ñu xamal lan ñu wàllum njàng meek njàngale mi daat na yënguwaat ndax mbootaay gii di g ñoom tey jii danañu daal di amal ab grève total la nga xamante moo ko waral la xam ne état bu Sénégal na leen ko ni ay yoo xam ne signé woon nañ ko ba léegi ni fourage daal di loole nag moo leen merloo ñoom sax dañoo jàpp ne état dañu leen fowee journal bii di waa Grand Place ndax maam góor jasak dafa yëkkati ay kàddu wax ne militaires yi dañu nekk ci camp yi maanaam di lekk ceeb rek ak nelaw dañoo war a génn nag daa di aar askan wi kàddu yi maam góor jasak yooyu nag ancien militaires yi ñoom dañoo mer ba futu jàpp ne maanaam dalee na saaga moo tax ñu daal di koy porter plainte journal bi di Dakar Times dikk ci scandale musiba mabakumba ak njaaxum gu rëy goo xamante ni Makhtar Cissé def na ko jamono ji nga xam ne maanaam moo jiite woon lekk ndax dafa signé ab contrat ak benn société ak lii société boobee nag maanaam amul benn xarañteef ba pare amul xaalis boo xamante ni war na ko mën a daal di liggéeyee Makhtar Cissé nag li nga xam ne mooy code des marchés publics jox ko marché boobee nga xamante ni toll na si cent quatre-vingt-sept milliards te boobale société ñoo ngi ko créé atum 2017 maanaam amuñu expérience amuñu nag lu jëm ci mbirum koppar mu nekk ay tojaange yoo xamante ni nag gis na ne daal Makhtar Cissé def na ko Sénélec bu ñu sukkandikoo ci Dakar Times a kaay ci banlieue bu ndakaaru ca Pikine ginnaaw raaya moom na ñeent ñi nga xam ne njort nañ ne ñoo def ñaaw ñaawteef ni ki démb daal nañ leen di yóbbu ci kasu bu rëbës yéen kay gi di libération mu ñu xamalaan ñu est-ce que xam ngeen ne Njóoba Sekk dafa ëmboona ba toll si juróom benn ci ay weer te ki nga xamante ne moo ko ray moom daf saa jubluwoon yàq ëmb ba ndax nag ab copain ci boppam moom la njort ne moo ko rey de Njóoba nag dafa ëmb te keneen moo ko ëmbal loole nag na bi ci boppam mënut a dékku bu ñu sukkandikoo libération ak xam ne moom la njortagun ca mbir ma yéen kaay gi de laas mu ñu xamal dafa am benn imam buy wuyoo si turu Xaasimu Basiru Juuf boo xam ne moom nag dafa yegg ci benn xale bu jigéen boo xam ne mineur la far xale bu jigéen ba daa di ëmb moo ne day imam boobu am na lu toll si ñaar ci ay soxna journal bi nag nee na àtte nañ ko ci tribunalum Dakar waaye nag procureur bi li xam le nañu ko tëj yéen kaay gi di réew mi ko dajee xëy nag dikkal ñu ci ay tojaanga yoo xam ne ni ki démb daat nañ koy àtte ca chambre criminelle bu Ndakaaru dafa am benn xamante ni Abdou Aziz Diakhaté la tudd ak keneen kum doon lëngool ku tudd Galaye Cissé ñoom nag ab oto la ñu jëloon mel ne ay clando bu ñu yebee ay client ci banlieue bu Ndakaaru dawal nag dem ba Technopole nangu seen alal agressé leen bu ne nag ay jigéen ñu daat leen di violer càrt càrt leen maanaam daat leen di tëddee ñaar ñooñu nag àtte nañ leen ni ki démb ci Ndakaaru waaye nag dañoo wax ne daal nañu leen tëj li des ci seenug dund